nañu que ne barrières yi levé nañ ko force de l'ordre dem nañu vous applaudissez. yàlla tere. combat bi jeexagul non non du question combat yow est yaa ngi seet bu baax question yi ngay posé su may applaudir day mel ni faveur laa am. oui mais vous vous vous demandiez ça waaw déglu ma a doon demandé. woo oh, déglu ma. n'est-ce pas. on a ah, yow soo ñëwee nga séquestrer une personne c'est un délit c'est un délit bu fekkee léegi da dem. ana sa mérite bi lan moo war a am pour mën lay tàccul au contraire dem nga et tu n'as pas dit pourquoi. Mhm. waxoo pourquoi nga ñëw waxoo pourquoi nga dem. Mhm. mais y un jour ou dina am fa ngay tàjji te tu rendras compte kooku mën naa la ko wax. ça ne sera ça ne restera pas impuni. tey jii nii Ousmane Sonko. ça ne restera pas ah, impuni est-ce que loolu noté nga ko. dégg dégg naa non loolu. ça ne restera pas impuni loolu du yow rek yaa koy wax Ousmane Sonko il est toujours dans dans ce discours. donc Ousmane bi affaire waxagul. non bii di waxagul ci mais je veux dire moom il est toujours dans ce discours di ngeen compte di ko fay di ngeen di la redevabilité ça fait partie des aspects de la. oui a nekk chasse aux sorcières rek. non chasse aux sorcières c'est même vulgaire comme terme. Mhm. redevabilité redevabilité c'est la compte c'est tout. Mhm. am na loo gérer da ngay rendre compte am na acte yoo def da rend rendre compte donc la reddition des comptes kooku ça fait partie de la